wasalaamaaleykum. jërë ngeen jëf mbokk yi ci wasaare làmb ñoo ngi leen nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax tey nag ñoo ngi fii ci géejawaay seet si ki nga xamante ni mooy Papa Boy Djiné Papa Boy Djiné nag mbër la nekk ci làmb amoon na combat nag waaye komba bi euh, mbokk yi mbas mee tax ñu xaw ko puus tuuti boobaa ak léegi dégguñu ko kenn gisu ko tey nag ñu seet ko bëgg waxtaan ak moom ci làmb bëgg waxtaan ak moom ci actualité yi nga xamante ni jot naa am ci réew mi xanaa ñu bàyyi ko mbokk yi mu nuyoo ñu doog a wéyal waxtaan bi Papa nuyu naa la Eh, di nuyu Sénégal yëpp di nuyu àdduna di nuyu waa Guédiawaye Médina Gounass di nuyu waa Touba di nuyu sama waa dëkk Daara Jolof moom doon réer ak a feeñ na xam naa yow ñu ngi soog a toog quoi mais maa ngi doon réer ak a feeñ jékki-jékki xam nga génn yooyu feeñ dugaat toog jàpp sama ñàmbur mais nag maa ngi sant bu baax di nuyu Sénégal yëpp yëpp yëpp di masuwu ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ci li xew fan yi passé parce que ñun moom xam nga ay porteurs de voix lañ am na yoo xam ne bu ñu ko gisee du ñu neex mais nag sëriñ bi daal xam nga moom mën na lépp yal yàlla def jàmm si réew bi di leen dalal jàmm jaajëf. Euh, li xew ci réew mi coow li bàyyi woon na jeunes yi yëngu woon nañ naka nga gisee en tant que jeune euh, manifestation am ñi ñoo ngi yàq ñi di toj ñi di jël alalu jàmbur we en tant que jeune naka nga gisee woon loolu. waaw ñun moom peut méttiitul nañ ko suñu biir xol yi ñi nga xam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg xam nañ ne méttiitul nañ ko suñu biir xol mais peut-être nag ñun dafa yàlla dafa dogal tamit ñun buñ jógee tey jii nii mun naa ne ñu bari dañuy jóg te lu olof Njaay di wax lu kenn mën a yàq boo ànd ak mbooloo de yëpp ñi ñu mën a waxal waxtaan nañu ñoom ñu ñu mën a diisoo diisoo nañu ak ñoom rawatina tey autorité yi nga xam ne ñoom ñoo dëkk fii metti na. neexul ci xol jeunes yi li ñu doon manifesté wu di xeex di xuloo di yàq dimpaar ñoom seen dëgg lañ nekkoon li ñu moom lañ doon appliqué li ñu moom lañ doon xeex waaye nag comme naam suñu borom def na si ndox mu sedd ba tey président Macky Sall delloo ci waat xel yi waxtaanaat ak jeunesse bi parce que réew mi jeunesse si la jeunesse bi tey bu ñu mànkooyee xàccandoo dóorandoo rek maanaam bunt mun naa feeñ waaye li li nga xam ne tey jii nii moom moo waraloon lépp rek. comme suñu borom def na ci ndox mu sedd rek sant yàlla daal di ñaan yàlla lu mel noonu bañ fi amati di ñaan yàlla loolu bu mu mës amati li des suñu dund si doole Serigne du Karim Mbacke metti woon na trop nag di masaw ñi nga xam ne dañ cee génn àdduna di masaw ñi nga xam ne dañ cee amay blessure parce que tey ñi nga xam ne ñoom dañ cee ñaax seen i bakkan tey bëggeewuñ ko noonu ñoom waaye nag yàlla suñu borom moom bakkan bu nekk fi mu ko yemale xëy na yàlla loolu la tuddoon quoi di si masawu seen i mbokk bu baax a baax a baax. ñu nga xam ne dañ cee blessé tamit nekk si hôpital yi yàlla ñaa defal leen jàmm kàttan na leen bañ génnaan mën a delluwaat seen activité si doole Serigne Touba mais métti neexul tamit toogaay bi dafa yàgg boo xoolee avant affaire yi di ñëw sax jeunesse bi munu ñëwoon liggéey xam nga coronavirus bi ñëwaat xam nga gën a bés la town bi xam nga gars yi toog toogaay bu yàgg léegi nag yu mel ni bu occasion amee gars dañuy fipp quoi xeexaale seen indépendance. waaw parce que tamit dafa metti daal kenn mënul wax lépp daal mais metti na trop man moom ñu doon génn di fee saw tamit xam nga man wax dëgg yàlla man merewu ma leen ku dee ak sa bàmmeel mais nag man dama nekk doomu aadama boo xam ne am na yu bëri man du ma mën a feeñ am na yu bëri du si mën a def parce que damaa weex dunk te nit boo weexee dunk nag am na yu bëri yoo xam ne da koy moytu tey ñaanu ma ko yàlla ñaanu ma ko yàlla te am na si loo xam ne bu ma si nit gisoon après du doon du doon loo xam ne tey jii nii si sa man lay yem. man nag ragaluma dara sama àdduna man ragaluma dara man yàlla laa ragal ak yonent bi ak sëriñ bi dund ma leneen parce que xam naa ne tey fu nit ñi di tiit wala fi nit ñi di ragal man jomm ma te xam naa ko kon man ragaluma ko waaye nag dafa am loo xam ne tey jii nii man waratuma parce que soutien de famille la la gisatuma papa gisatuma yaay ay mag yu jigéen la am ak ay rakk yu jigéen kon li ma mën rek mooy métti ko sama xol comme d'habitude ni ma def nii ma génn wax li nga xam ne moom moo nekk sama xol. après ñu ma siy dégg dégg ma si ñu ma si mën a gëm gëm ma si ñu ma si mënta gëm tamit di aywa ñu dem loolu moo si nekk mais metti na neexul daal te su ma sañoon yu mel noonu dootul amati Sénégal wax dëgg neex yàlla Macky Sall jéem a xool jeunesse bi li mu bëgg mu nekk si ak loolu parce que réew boo si nekkee da xool li jeunesse bi bëgg nga àndi si ak ñoom nit ki am nga droit nga am lu la metti nga génn nga kaas ko loolu am nañ ci droit kon yu mel noonu boo amatee nañ leen bàyyi ñu génn ñu kaas seen yu droit. parce que nit bëgg a manifester nga ne ko doo fi manifester loolu amul benn réew bu moom si àdduna te boo xoolee yeneen réew yi tey ji da ngay gis nit ñi dañuy manifester wu policiers dañ leen di encadrer nii taxaw nii ñu manifester wu kaas yi nga xam ne moom lañ moom moo nekk si ñoom mais réew mi fii xam nga li li président bi doon wax jamono yee passé bëgguma gis lu xonk te ñun bu ñu amee lu métti lu xonk lañu war a takk. xam nga loolu waaw loolu xam nga loolu daal xel nanguwul loolu daal mais nag comme ñu mooy suñu président pour l'instant lu dul ñu warmaal ko jox ko cër bi mu moom daal du ko ñaanal daal suñu borom defal ko jàmm moom it président Macky Sall mu delloosiwaat xelam te jàppale jeunesse bi waaw. gis ngeen suñu borom delloosiwaat xelam mu jàppale jeunesse en tant que jeune mooy wax koo xamante ni ci réew mi la bokk am kàddu am droit wax ci biir mi mais bu ñu jógee ci loolu ñu gis Papa Boy Djiné dugg si ci làmb lan moo dugal ci làmb. man lu ma dugal si làmb rek mooy teral samay waajur dimbali samay waajur dimbali samay mag dimbali samay jabar ak képp koo xam ne mun naa la dimbali. man su ma gisee lu gën a yomb làmb lu ma mën a may xaalis dama koy bàyyi dem seeti loolu làmb yombul te jàmbaar moom moo koy def bëre daan ak daanu nag moom moo ànd soo bañee daanu bul bëre li waa ji waxoon sëñ Fallou ñëw si sëñ Fallou ne ko damaa bëgg nga ñaanal ma du ma daanu si làmb sëñ Fallou ne ko bàyyil bëre ndax kuy bëre day daanu mun naa laa ñaanal nag jël yi di sorante mais képp kuy bëre da ngay daanu làmb daan la ak daanu. kaf la agré mais nag léegi làmb gaay yi jàppeetuñ ko loolu mais man làmb bi ma siy dugg teral samay waajur ñoo taxoon ma dugg si làmb surtout nag sama papa maa ngi koy ñaanal yàlla xaree ko àjjana te yeexuñ surtout moom parce que si situation bi mu nekkoon li mu doon dund ma nekk xale bu ndaw gis ko yàlla xiir ma tey si làmb ma xam ne kat peut-être jàpp naa ne pour sama réussite pour man ci làmb la gën a gaawee. mais euh, jàngi mécc am na euh, dem liggéeyi am na mais lan moo la xiirtal ci nga dem bëre ci moment boobu noonu. waaw doon naa jàng mécc man mécanicien laa man mécanicien laa def garage la joor laa laa laa mujjee liggéeyee suñu garage ba tey mu ngi foofu maa ngi nuyu suñu patron Balla fii laa jàngee mécc croisement Béthio Sabu Diallo suñu benn grand boo xam ñoo dëkk ñoo jàkkaaroo benn kër moo ma jàngal métier man mécanique laa jàng yaa ngi dégg mais bi ma demee ba benn instant tamit. yàlla dogal ma nekkaat ci làmb dem ba làmb ji ëpp ma doole suñ borom yóbbu sama tur foo xam ne man sama jëmm yeggul foofu ma concentré wu si bëre bi gis moment boobu boo xoolee ay 2005 boobu ay Balla Gaye xam nga ay Lac de ñu ngi nekkoon ci kalaaf boobu noonu. ay Zos waaw ay ay Bac loolu bokk na tey ci lu ma gën a enquêté rek tey mën mu dugg ci làmb. mais est nga lu bàyyi. laay loolu loolu bii di la fanaan man li ma mbapat bëreewuguma ko ren. kon toj nga mbapat. man li ma mbapat bëreeguma ko arène. yàlla ñu bari dañuy gis Papa Boy Djiné euh, bi ñu ko xamee yàggul mais tur bi dafa ko foo xamante ni nii maanaam dafa góor loolu ci làmb loolu moo tax may laajte est-ce que mbapat nga lu bari. waa man li ma mbapat bëreeguma ko arène te yàlla mu ngi dogal am na benn affaire bu ma bëgg a def loolu après xam naa ne ñu bëree bëree bëri bëri dinañ leen jox mikoro tàllal leen ñu wax. ci loolu fii ma dëkk Gunaas fii nga xam ne man fi laa juddoo fii laa yoroo fii laa màggee géejawaay fii sama lépp fii laa ko defee c'est nag man sama mbapat bokkul yenn gars yi comme seen mbapat ni ñu doon génnee di dem ay fu nekk di bëri mbapat man Gunaas fii géejawaay ba mu daj képp kuy takk ngemb rek di bëri mbapat xam nga Papa booy Djiné loolu yàlla dogal na ko boo soxorul nag laa wax xam nga soxor day dab si nit boo fekkee soxoroo nga waxal yàlla di nga xam ne Papa Boy Djiné mii may gis muy bëri arène ak Papa Boy Djiné ma doon gis muy bëre mbapat du benn waaye loolu suñu boroom la soob. lan mooy différence bi. waaw parce que làmb sens la du mën wala jàmbar sens la li ma wax barki Demba Ndiaye sam benn xarit pas minute rek làmb yenn yi si am bu si amuloon ñu bëri dañuy bàyyi bëri parce que làmb ji dafa bëri ay tàppet. comme yan leeralal ma benn wala ñaar. xam nga mbapat bu njëkk da doon ñëw mbapat dem ko ñu jàmbul du bëri. Hmm. ñu génnee lay paaka boo daanee diw ñu rey la. Hmm. wala boo ko daanee ñu jam la man yooyu dama cee bëre daan ci ba sonn bi ma fëlee sama problème bi jóge ba ak làmb ji ma mujjee bëre jàmm gën laa ko bëre ko ñu sita maag yuusu bu jàmm gën amul fere. Mm-hmm. cinq jël laa ko daan ci benn taakusaan. lu loolu làmb benn jël lay am di. jël laa daan nag dama koy daan ñuy bañ ma koy daan ñuy bañ cinq jël laa ko daan. moo doon arbitre le combat boobu na ma seede moom Abu Ndiasse mm-hmm. man laa ko laa ko man li nii dafay am seede. Balla Gaye junior moom moo ko moom moo ñoom ñaar ñoo arbitré làmb ji ñoom ñaar Balla Gaye junior ak Abou Ndiassé ñu ngi woon ci làmb ji ñoo ko doon arbitré li may wax nii su fekkee ay fenn la bu ñu defatee interview nañ génn papa li muy wax du dëgg tey am na si ñoo xam ne rek tey jàmm gën boobu ñu dëkk rek man mun nañ ma seedeel si sama mën a bëre war na Serigne Touba parce que am na ñu ma sekkal nag loo xam ne jàmm la ak salaam ku si mel ne ab du Seck ndam si yàlla si Fodé ku si mel ne ay ñoom Baba Niang xam nga. su mel na tey jii nii ay Abu fay ñu nekk ñoo xam ne ñoo am lu ñu boole woon ñu nekkoon tey si biir di ma seetaan muy bëre. mais léegi lan mooy problème bi. voilà léegi nag yàlla dogal na tey dama ñëw arène am ay combat yoo xam ne dama ko ñàkk te Sénégal nag loolu di wax rek gëm nañ sport mais gëmuñu defet Sénégal. gëm nañ sport mais gëmuñu defet takk fubal mais des mu ñëw ci max du gis sax. dégg ay saaga wala dégg musiba te Afrique bokk na si ñu dàq fubal loolu Sénégal la loolu ñu ñoo koy dund ñun. mbaa du ñu ñoo mënul sport. ñun ñoo mënul sport ñooy dund loolu mais nag sant yàlla quoi ñun ay jaam lañ may ñu suñu bopp te man làmb nag wax dëgg neex yàlla lu ci war lépp dama koy def mais ndam xaw ma fu mu nekk damay am njort bu rafet rek dem wuti ji ko. dama dégg sànq nga ne problème bi problème bi laa bëgg xam lan la. non problème bi du problème mu dara problème mu man damay ñëw si arène. des fois ma ñàkk sama combat combat yoo xam ne jàpp nañ ne combat yi waruma ko ñàkk te bi may dugg ci arène wala bi may commencé di bëreen. mais lan moo tax sooy ñëw papa ngay xeeb sa adversaire tout le temps lan mooy problème non parce que doo leen jox cër bi nga leen war a jox papa doo leen ko jox. non peut-être nag comme yow comme tey jii nii mën nga see am ay morom yoo xam ne ñoom loolu la ñuy gis mais làmb mënoo jël adversaire te doo ko respecté doo ko jox cër bi mu moom dafay fekk. mu war la daan mu daan la mooy li ma sama papa wax sa bëre arène du yomb mais képp ku la war a daan ci kàttanu yàlla dalay daan bu la neexee ak bu la naqaree demal fu la neex si àdduna dalay daan ñi nga war a daan bis boo si jotee pour nga war leen daan buñ demoon Guinée Bissau wala ñu dem gana bu ñëwee da leen di daan te loolu man dama ko gëm te maa ngi si lool découragé wu ma benn yoon. tey sama làmb ni mu demee am na si ñoo xam ne seen làmb bi mu demee noonu dañoo bàyyi ay quatre cinquante cinq ans six ans dégguñu leen toogaat ba mu yàgg ñu ñëwaat seen borom dimbaleen tey ba tey jii ne am na luñ doon tey si làmb lekk nañ fi tey xaalisu làmb mais considéré ma sama bopp comme ñoom nag déedéet waaye dañoo xaw a nuroo jaar-jaar man sama làmb mënut a yomb parce que dama dëkk ci gox boo xam ne tey jii nii nga nekk jeune suñu borom teel dimbali tey si coow. ba tey bu ñu nee géejawaay tey jii nii bu ñu nee dañuy xool tey dix stars par la force mu neex mu naqar di la si génne parce que tey Papa Boy Djiné mënatoo ko toog fii tey boo doon wër tey géejawaay ba mu daj di laaj Papa Boy Djiné ñu naan la xamuñu ko du bari kon loolu sant yàlla la te samay défaite moo ëpp samay victoire kon loolu ma ko war a santee suñu borom xam ne tamit bu yoon jeexul waaxu si du jeex li am important mooy nga gëm li nga war a doon te man li ma war a doon gëm naa ko sama làmb mënul yomb parce que man xam naa ko. li tax mënul yomb nag man sama jëmm bopp man kosaawtaal naa ko sama bopp jàngataal ko sama bopp xam ne lii du yomb mais nag man li nga xam ne gëm naa ko saa su nekk rek dina metti mais man xam naa ni li ma si bëgg dinaa ko am. dama gis yenn booy euh, yoo xamante ni chaque jour dañuy bëgg di bëgg yow chaque jour bu ñuy bëgg di bëgg yow dañ naan ma jox Papa boo Djiné ba di ci laaxaale sax sëy ndey mën naa ci lim ñu bari mën naa ci lim sax génnee kenn muy alliance bale ndax ba ki dem seetaan seeti naa ko nee na bu bëree ba bàyyi te bëreewul ak yow même boo bàyyi woon sax force da ngeen di bëree lan mooy seen problème yow ak ñoom ak ndéygee lan mooy problème bi. waaw su fekkee man nag dama laa jox cër yow. Mhm. j'ai beaucoup de respect man jox naa la cër. te cër bi ma la jox nii yaakaar naa ne interview bi. nekk nañ ci di wax presque lu mat deux semaines wala trois semaines. yàlla dogal tey la koy soog sottil hmm. man nag dafa am yenn gens yoo xam ne yàlla dafa dogal man du ma communiquer si ñoom hmm. parce que yàlla dogal na man li may wax tey suba moom laay wax man nekkuma doomu aadama boo xam damay wax lii tey suba mu wax lee tey hmm. non non man gëwma loolu kon man du ma tontante koo xam ne tey day wax lii tey suba mu wax la man gëwma loolu kon su ma soyoon question bi nga xam ne moom nga wax nga zappe ko dugg ci leneen parce que du man ak ñoom ñoom du ñu mënta man du ñoom li nekk sama loos nekkul seen loos kon su may tontek ne damay tontek too tontek koo xam ne tey jii nii am na ñu ko naw wala am na ñu ko fonk wala ñu ko respecté parce que doomu aadama loolu di wax tooñ baaxul te yàlla buggul kuy tooñ rawatina nag ngay tooñ koo xam ne ëppoo ko doole ëppoo ko fit gënoo ko ñeme. su la woowee allo foo nekk doo ko wax foo nekk su la waxee kañ daje doo nangu ngeen gisee suñ la dëkkee micro ngay wax si moom man kooku du mu mën a tontu si moom. est-ce que nga fi ma waxee man li may wax nii nag en direct laa koy wax nii te li may wax nii àdduna yëpp dañ koy seetaan man damay bëgg di jëflanteeg koo xam ne carrément su waxee dara day assumer ay responsabilités am du si ragal dara. ki ngay wax sorante wuñ man ak moom fi mu dëkk ak fi ma dëkk. man du ma tontonteeg kooku ngay wax si ay internet. yéen ñaar dafa am lu jot a xew seen diggante dara du dox suñu diggante man ak moom te dara du mës a dox suñu diggante. kon bu ñu àndaloon avance am doo ko jël. non c'est que déggoo li ma wax yàlla mooy dogal. yàlla nag bu dogalee si musaa fay mee di dem te nanguloo ko dangay sonn yàlla bu dogalee ci Tapha li ko yàlla may te nanguwoo ko da ngay sonn maa ko ëpp ay défaite moo ma ëpp ay victoire waaye bëréewuma ak moom parce que man su may bëri damay bëri dégg damay koo xam ne sax la maximum nit ñi respecté nañ la war jox nañ la cër parce que doomaadama cër yaa koy incarner sa bopp doomu aadama da ngay fonk sa bopp d'abord ñu fonk la mais tey boo xëyee yaa ngi ci musaa ginnaaw suba yaa ngi ci Demba ginnaaw suba yaa ngi ci keneen chaque jour ci détail détail détail détail détail détail da ngay jéem a xool li nga bëgg yow nga nekk ci loolu nga bàyyi wax ci làmb kum la booleel nga bëre ak moom yow su fekkee dangaa ngaa bëgg a bëre ak papa. demal nga wuti promoteur bu mën a fay papa mu ñëw bëreeg yow ak ku mën a doon waxuma si kenn rek de man mbër bu bëgg a bëreeg man demal nga wuti promoteur bu ñëwee fay ma lu ma bëgg ma bëreeg yow parce que man mbër laa te damay liggéey xaalis laa bëgg comprendre fi ma waxee mais ay détails wax fii wax fële loolu góor moomu ko góor moomul loolu man barki alxuraanul karim billaahi wallaahi wal kitaabi man ku mu mën a doon ku yàlla bind koo xam ne nasu nga yor suñu boroom sàq la su ma demee ba ñemee taxaw wax si yow ba jaar sa tur barki xaadimul Mustafa ak fu ñu mën di dem ak yow su fekkee li ma wax ko assumer sam papa jur yàlla naa gën a yées. man wax laa wax looloo waral nag man duma dugg si kenn du ma tooñ kenn du ma waxu jàmbur du ma dugg lu sama yoonul nekk maa ngi toog jàpp sama coin jàpp sama ñàmbur. entraînement ñoo toog suñu kër su ma amee sama soxla dem doxi ko samay soxla bopp dem doxi ji ko ñaa toog jàpp sama ñaambur. baax na ñu bàyyi mu mu soufflé tuuti ñu dellusiwaat ci combat bi mu am ci digganteem ak moog bébé Bismi lan moo dugal ci bébé Bismi. adversaire la comme adversaire yëpp mu nekk mbër def lu nekk ci làmb bébé Bismi bi muy bëree cinquième kombaam su ma juumul xaw ma quatrième combat am boobu man man maa ngi ci kaso bi. te bu fekkee suñu borom dem na ba tey ñu war a bëre kon loolu dama koy sante yàlla sante ko ko moom parce que bu ko neexoon mu ne duma ma bëre Papa Boy Djiné am na si droit te mbër la mais jàpp naa ne yàlla dafa namm loolu xëy na bu bëgg ko dogal te jotagul ñu war a jëflante war ñu war a bëre ba bis mi lu ma dugal si moom pour ma man moom ndaanaan la te bërekat la te macha allah su bëree mu neex bu feccee mu neex. man nag mënuma dara xaw ma dara mënuma xeex mënuma bëre mënuma fecc mënuma dara waaye sama waxu démb mooy sama waxu tey sama objectif ak li nga xam ne moom laa gëm te si kàttanu yàlla mi nga xam ne yàlla suñu borom mooy maye ndam incha allahu rabbi man maa ngi liggéey loo xam ne si kàttanu yàlla su fekkee moom mooy tax bébé bis ma daan ko si kàttanu yàlla dinaa ko daan donte mënuma bëre nag mënuma xeex. amu fit ñemewuma tàppet la mais si kàttanu yàlla bu neexee yàlla suñ jëflante ba pare ah yàlla baax na daal. mënuma bëre aw ma doole aw ma fit loolu la yaa ko wax ñun waxuñu ko mais est-ce que xam nga Bébé Bismi ndaanaan parce que da nga jógee ci defet moom tamit am na ci lu mu jógee nga dikk jël ko am mbooloo mu bëri boo xamante ni papa saa boo ñëw ci làmb dañ lay topp. te chaque jour euh, des fois li ma ko wax naa la ko sànq ci biir waxtaan bi lu ci bari gëm bu ëpp ak euh, am fit bu ëpp day bokk ci lii lay ñàkkloo say combat te waa géej waaye dafa am fuñ la teg est-ce que yaa ngi sóorloo sa diggante ak Bébé Bismi ndax moom tamit ñu ci bari combat mujj nee na manqué nga doole moom tamit nangu na nangul na leen loolu ba nee na bu simee ko combat bi di ñëw ñu ci bari euh, dootuñu waxatu loolu leneen la ñuy wax waaye loolu ci bokk. sama combat man ak Bismi moom bu baax. dont làmb doole moo koy gañe mais maa moom sama làmb ak moom du doon làmb doole. su loolu bu ñu ci yeggee moom dina ko xam. lu ma leer ba leer ba leer ba leer man du doon làmb doole. doole daa am fu muy yem mais li ci des xel moo koy mottali bu ñu jëflantee ba pare la maximum la maximum. senegal dina am paa bu ñu ma jëlee yóbbu ma si beneen pas suñu bëree ba pare man ak Bébé Bismi su neexee yàlla ak yonent bi. maanaam bu làmb ji jeexee fañ doon teg kii di Papa Boy Djiné dinañ ko fa teggi yóbbu ko feneen si kàttanu yàlla parce que man biir na ma biir yàlla si sama gëm-gëm nag laay wax waxuma affaire sëriñ wala ñaankat wala dara déedéet ci sama gëm-gëm. moom na def lool ci xelam na def si boppam loolu. moo ngi lay seetaan Bébé Bismi mhm. moom na def loolu ci xelam def ko si boppam moom làmb ji lu mu ci bëgg rek ci kàttanu yàlla lu mu ci bëgg mais man soxlawuma lu yàgg man lu mu ci bëgg bëgg naa ko te soxlawuma lu yàgg. <laughs> Euh, ñu ñu question bu mujj bi euh, gannaaw corona bi jëloon na tëj làmb ji ñu dem ba moment bi ñu ne làmb ci jéeku ne est-ce que buñ na woon Papa Boy Djiné kombaam fii ak deux semaines fii ak un mois pare na est-ce que Papa Boy Djiné dina ci pare bu bëri. kon saraxu nag laay génne daf ko ñeenti mbanakay woo gars yi suñu kër ñu ñëw añ si suñ demoon làmb ji deux semaine ñu ma bëreew saraxu nag laay def def ay mbana togg ay laax woo artistes yi ñu ñëw xam nga dañoo gëj a waaye artistes yi. ñu wayal ma ma fecc man lu may ragal ci loolu man Bébé Bismi sama làmb man ak moom bu nekkoon ci deux semaines lañ ko tëgg ma bëre moom parce que ragaluma loolu ci moom ak keneen ku yàlla bind man tàppituma doomu aadama parce que li tax loolu mooy làmb munoo wax a wax ba rey ma doo fees dañuy bëre après xam nga ku yàlla may ndam nga xam ne kooku la kon Bébé Miss man amul lu may xalaat si moom lu di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal salaam di ko ñaanal tawféex seen appel bi ñu jëm suñu borom def si jàmm ak salaam kàttanal ko dooleel ko yàlla dogal ñu am date yàlla ma yàlla nekk avant koor incha allah Fallou Ndiaye yàlla na am xel boobu wala mu am date avant koor su mënee ne su ko amoon ma jël nii nii nii nii nii nii. parce que man lu lu bëre. te boobu ba léegi maa ngi compétir di entraîner tooguma benn yoon parce que làmb ji ma war a bëri daa am fu ma ko war a yóbbu daa fu ma war a yóbbu daa am na fu ma ko teg te làmb ju ma fonk la làmb ju ma bëgg la moom Bébé Bismi bu si nekkee maay si bu si nekkul maay si. waaw làmb ji dong taxul ngay entraîner. non non sens bi ma si am mooy loolu am na leneen loo xam ne moom laa bëgg am na leneen lu ma teg sama bët. te loolu chaque jour dafa laaj may entraîner kon ma war a bëreeg bébé bi dama koy gën a santale suñu borom xam naa man li mu mën a am parce que boo xoolee làmb joo xam ne depuis daaw ba léegi soo amul loo gënal nga bëre ko mu wàcce la nga nekk si leneen ko barki sëñ Touba soo bëre woon làmb ji daf lay wàcce après nga nekk si leneen mais xam nga tey nga téye xaalisu jàmbur kañ nga ko lekk jeex na yàgg na. suñu combat man ak moom bi muy bi muy yàqu boobu làmb ji ay vingt cinq jours vingt six jours moo si xaw ma un si làmb joo xam ne làmb ji novembre la taxaw novembre la taxawoon décembre janvier février mars ba fin mars làmb ji di soog a yàqu ñu waroon bëri le 19 avril avril daaw ba léegi nii xoolal avance boo jëloon novembre ba léegi ah. kon bu ñu la woon ne làmb ji fii ak dimanche bi ñëw bi si topp ngay bëre yow lan nga war a def loolu ñëw bëre ko mu jeex ah non da koy bëre mu jeex après nga dégager loolu nekk si leneen. Euh, bu dul làmb lan mooy sa sport. man bu dul làmb moom boxu dama ko bëgg dama ko bëgg trop tey su ma bàyyi woon bëre. su ma amee coach yu ma mën a suivre boxe moom laay dem def nii nii nii nii tey su ma amoon ay coach yoo xam ne mën nañ ma suivre si boxe ma bàyyi bëri dem defe ji ko. démb seen naa la <laughs> buñ génnee ci loolu ban palaa nga gën a bëgg. palaa palaa lekk. voilà kay lekk lay nekk ah Adama. <laughs> c'est su ma déggee wax jooju sama xel dafa am fu muy dem quoi. sama <laughs> <laughs> su ma déggee la dafa am sama benn xarit boo xam ne ndeysaan mi ngi mi ngi France. Mm-hmm. Assane. ndeysaan maa moom dafa am fu ñu yàlla boole woon wax ji nag du ma ci yegg mais tey interview bi bu ko seetaanee day ree ba dee. ndeysaan dafa am benn gelam boo xam dana ko woon lan mooy sa palaa préféré <laughs> moo ko lii plat <laughs> moom sama plat man na doon liy tàng rek. <laughs> man am na loo xamante ni moom nga gën a bëgg. non man bañu ma dara mais ku nekk si jël di lekk ay cere yu am sax ak di lekk ay somb yu am sax lu nekk nga koy lekk ay jangaa di lekk ay mburu yoo xam ne def ay 4 jours amoo looy bañ. man bañu ma dara man Baye Fall laa barki sëñ Bamba peut-être nag sama visage nii tey si caméra wala tey su ma toogee dox ñu bëri peut-être xam nañ naan booy bi dafa bëri wax wala booy bi def fi dara wala booy c'est-à-dire nag affaire bi du loolu non affaire bi du loolu man damaa dund li may dund loo xam ne man sama bopp man daf ma doy toog toog toog toog toog xooluma keneen lu mu dund man situation bu métti dama ko xam dund ko man amul lenn loo xam ne carrément su ma xiifee nga tegal ma ko ma war ko lekk du ma ko lekk gisuma ko man na saf suukar mbaa xorom rek wër na maam Cheikh Fall dama koy lekk parce que li ma dund la xam ko jaar si mu doon metti doo gis kenn waaw xanaa rek di sant rek di sant suma sëriñ sëriñ Abdou Karim Mbacke di sant suma yaay soxna May di sant waa Touba yëpp nag di sant di sant tamit sëñ Amsa sëñ sa borom tëlim mag maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm sëñ Amsa maa ngi koy ñaanal bu baax. di ñant di sant tamit làmp làmp tilaala la maa ngi koy sant bu baax di sant baay Touba parce que ñooñu dañoo bokk ci man di ñaanal Serif Tilala Fall yàlla xaree ko àjjana ci àjjana yu firdaws yi di jaale tamit sama waykat suma mag suma lépp suma xarit suma doomu ndey Waly sekk maa ngi koy masawu tiis bi nga xam ne moom moo dal ci kawam. loolu la ñu woon tijjee waaye xel du fot. di ko ñaanal suñu borom bu baax a baax a baax yàlla may ko xolu muñ. li ko dal bi mu fi gëjee ci man yàggul waaye nag yàlla moo ko joxoon te suñu borom moo ko jëlaat te jomm ko woon moom moomu ndax suñu borom mënoon na ko yóbbu bàyyi fi coon waaye lii moo gën ci moom ñu ngi ñaanal coon nag yàlla xaree ko àjjana te yeexe ñu ci àjjana firdaws yi ndaxte wax dëgg neex yàlla man de duma témoigner ci moom waaye maa ngi koy ñaanal yàlla defal ko jàmm yàlla defal ko salaam te Sénégal nañ bàyyi ba nit dee ñuy témoin ci moom lu rafet nañuy waxal nit ñi lu baax ci bi ñuy dund samay wax du neex man du ma dara nag tojuma fenn maa gën a niil du ma mbër du ma dara amul problème mais nañ bàyyi Sénégal bu nit di dund duñ ko waxal lu baaxam mais il fallait que mu dee ñu soo ko seedeel lu baax senegal nañ bàyyi loolu ngir yàlla war a suuli ngir jëmi Serigne tuubaa xam ne ñun ay julli la dañoo war a waxante lu baax di defante lu baax di bokk ndey di bokk baay ndax àdduna amul solo loo ne diw du ma booleeg moom rek bu ko yàlla yóbboo wala mu yóbbu sa xale wala mu yóbbu sa papa mu boole leen yéen ñaar ndax di nga ko jàlle si kon àdduna amul solo nañ bàyyi xiiroo yi ak ŋaayoo ak rayante yi lépp dañuy dee ñu bàyyi ko fi nañ def loolu suñu xel def ko suñu bopp yi. yàlla daf ñoo indi fii si àdduna pour ñu jaamu yàlla suñu borom julli ci yonent bi fonkante bëggante ndax yàlla nee na lim sàkk doomu la ci gën a fonk lan moo tax ñun doomu aadama mënuñoo bëggante suñu biir sàmmante suñu biir relation yu baax yu rafet yi mais léegi Sénégal balaa ngay am lu la neex rek nga yàq Papa Boy Djiné wala nga xaawi suturaam ba nit ñëpp yëg ko loolu baaxul nañ xam ne ñun buñ deewee dañuy gas ba ñu xóot ñu suul ñu si te lépp loo def si kaw suuf. boo duggee sa biir bàmmeel di nga ko fa fekk moo xam lu baax la wala lu bon la nañ delloo si waat xel te xam ne àdduna amul solo nit warul ñor nit lu dul yàlla suñu borom yàlla rek moo war a ñor doomu aadama loolu nag message la boo xam ne ku ko bëgg a déglu yow laay waxal ku ko bëgg a déglu déggu nag maa ngi lay jéggalu di la masawu di la wax nga jéggal ma te yàlla tax waaye li may wax nii man lu nekk sama xol la lu nekk si man la di nuyu sama grand borom Singapour di nuyu Papi borom Dubaay di nuyu tamit Mame Boye jaawoo DG maa koy nuyu bu baax di nuyu tey jii ñi may jàppale bu baax a baax di nuyu sama benn yaay boo xam ne moom xam na boppam bu xees xam na boppam sama yaay bëgguma wax turam parce que xam nga ci métier bi la nekk waaw te xam nga rek gars yi xamuñu xarit surtout yéen métier bi ngeen nekk pourtant war nga am xarit war nga am doomu ndey. mais tey Papa Boy Djiné bu nekkee sa doomu ndey suba boo demee seeti ji mbër wala mbër xam ko mu ne non kii Papa Boy Djiné la faral te pourtant sama xarit nga te xarit dafa war a nekk kon yàlla yàlla def jàmm si réew mi di ñaa ikiri mbër yi nga xam ne dañoo am combat suñu borom may leen ndam surtout la dëggee numéro 2 di ñaan géejawaay jàmm am fi di ñaan mbër yu mag yi fi nekk suñu borom defal leen jàmm di ñaanal autorité yi nga xam ne ñoom ñoo nekk géejawaay yëpp di ñaanal ñi may jàppale ñëpp nag rawatina nduur ak sëñ Bas Gasama maa leen di siyaar di leen bëggee bu baax di nuyu ñi may àndal ñëpp nag te moom du ma lim seen tur mais maa ngi leen nuyu du nuyu tamit sama sama jabar ak samay goro ak samay mag samay rak samay jarwaat waaw bu baax a baax a baax parce que ñoom laa am soxna si tey moom moo tijji fii di ko ñaan suñu borom def si jàmm ak réussir total si barki alxuraan yee ñu ngi lay jaajëfal bu baax. gis ngeen noonu lay demee ci wasaare làmb Papa Djiné leen dalaloon maa ngi gërëm sama cameraman bu ñaawul bi Adama ah di nuyu ki nga xamante ni mooy soodu soodu bu sëñ Saaliw moo bëgg sëñ Saaliw ba mu jeex doomu nday Yaasin euh, doomu nday Adama ko jaajëfal bu baax a baax maa ngi nuyu sama président Lat Diop di ko jaajëfal bu baax a baax di ko wax na gën a jàpp rek mooy président LONASE kenn du moom jaa ngeen jëf ba beneen.